ndax tey jii musique dafa doon lu loo xamante ne li daan jàng bu dul mokk la muy revenir ci li nga wax rek ndax dangay ngay déglu lu bari sunu papa yooyu nga xamante ne ñoom nga tudd nga xam ne ñooñu histoire musique mënu leen fàtte waxuma la Sénégal mais àdduna bi nga jiital ci suma papa Thione sek yàlla na ko yalla yeureum jeegal ko xare ko aljana ak suma papa Youssou ak suma papa Ndiouga Dieng moom it yàlla yàlla yeesal yërëmande di kaw xare ko ci aljana yi gëna kawé tek ci suma papa Youssou Ndour hakay ah, kay damay déglu ñooñu bu baaxa baaxa baax a baax dama leen di déglu sa su nek ba legi may playlist suma auto sama kër yi bo fa ñëwee lu ci bari ñoom lay déglu parce que kan? nak bu dé tém yo xamanteni dañ lay delloo ci dañuy wax wax jom jëri di wax lo am sens parce que kan sama papa nak mënon wax né man woy wax duñu ñu la rek woy wax suukar la kon xam nga wax jooju war naa mën a am njariñ ne taasu wax juñu xorom la ñooñu li tax ma leen di déglu c'est parce que dañuy wax lu am solo da ngay réer ñu gindi la da ngay réer ñu indiwaat la parce que c'est des porteurs de voix dañuy jàngale c'est des éducateurs bokk na ci li tax ma respecté leen naw leen boo gisee lu tax man mënuma wax lu ñàkk fay bu dee mbëggeel sax dama ci aborder thème bu am solo boo xamante ne yow boo ko déggee daf lay jàngal lu bare bare bare bare ci ñooñu laa ko jële ma dellu si ci sa deuxième question yi ndax sa papa Youssou Ndour daf la conseil en ah, kay war na ma yoon woowu damay dellu si waat rek daf ne ma moomoo liggéey yu bari wax lu tuuti mu ne ma nag xam naa ne nag sa génération dafa metti trop <laughs> la moo tax sa génération dafa metti mooy nit day wax ba raw <laughs> wax loolu tax ma yërëm la mais nag nekkal ca la nga nekk rek côté nag spirituellement ñun ah, yonent bi lañu tuddee Seydina Muhammad alors leneen métier la rek mais nag buñ ca jógee dañuy jaamu yàlla parce que tamit ku nekk da sa métier da liggéey liggéey jaamu yàlla la waaye tamit da jox yàlla ji li mu moom loolu rek la de fi ñëppay julli du man kese artiste yi ñëw ñoo fi dàq julli fuuf ñoo ma dàq julli fuuf gars yi dañuy julli dañuy wer <laughs> man dañ maa yem rek bëgg maa def seen imam mais nag loolu sant yàlla sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax te bañ ko dalee def ba tey amul dara lu ñu wàññi yàqaluñu dara it suñu liggéey au contraire daf ñuy yokk jaajëf da ngay def diiwoo ak sa wayju te koku suma papa la donc te lolu man na ne rêve la bima nekké xalé ba tay ku gis mo jeng ak ni muy doxé eh? ak ni muy doxalé eh? da ngay eh, xam ne ay référence ci musique sénégalaise rawati na ki nga tudd léegi jëm ji nga tudd léegi alors lolu rêve la suma papa yi sunu tamit ñew Dakar Arena loolu beneen affaire lay doon te dama ne xaar leen lu nekk événement bi yéen xaar leen lu nekk lu nekk ngi ci biir lu ne mën na nekk donc du ma ci question boobu parce que yéen da ngeen a bëgg samay surprise ak yi ma war a def ma wax ko te loolu bu ma ko waxee du safe donc xaar leen lépp ci événement bi incha allah

Euh, alors quel sentiment après cette sortie grande, cette sortie exceptionnelle première question deuxième c'est un succès retentissant après cette sortie Bon, résultat résultat travail c'est un travail de l'homme à avec tes collaborateurs en tout cas résultat quoi bi la sorti naa ko yëngal nag fa la ñuy wax Dakar Arena merci beaucoup. jërëjëf. je pense que da nga ne absence say longue absence yàgg na de ah <laughs> ah ah ñun de ñu ngi fexe à chaque fois ñuy exister ndax existence weesuwul semaine bu nekk yaa ngi produit. Et je pense que ça y a une idée de ça, n'a pas pire. Quel bout ça a dit? Photo, Donc c'est un tube qui xamante ne waxuma de Sénégal mais à bout de wër te moo ma jën kese ko def man en personne du tuyoo du dara man rek Je ko def te boobu il y a ngi doxoon Il y a ci plateforme nous ngi fi on est là longue absence wax noonu déedéet on là hein? non non non du kiw ñëw ah bon ok ok ok ok donc ñu ngi fi euh, li nga wax ci album bi man def émission suñu dajee moo bëriwul donc damay faral di daw lu bëri bëri bëri média que damay bañ a juum loolu rek la de mais bu dee existence ñu ngi fi liggéey tous les semaines ñu ngi liggéey di nekk suñu yoon carrière la ñuy def du benn fan du ñaari fan loo xamante ne danga koy liggéey la au doo tàyyi ba nag karaam nga yéeg fa nga yéeg parce que ñun dañoo bëgg indi fii ay disque d'or dañ fi bëgg indi ay disque platine wax dëgg yàlla ñaanuma way ba bàyyi way te duma fi indi yooyu yëpp incha allahu rabbi donc wax nag lu mu rëy rëy mën ta jëf jëf lu mu tuuti tuuti mën naa tontu man limay faral di wax jarul wax di bëri ne jef jo bari ne je pense que lolu mo upp solo li ñun ci yoon bobu lañ nekk ci voie bobu lañu nekk di way lu neex di teug ay événement yu mag àdduna ñew di ñu fekk ci doy na sax jërëjëf merci beaucoup alors je vois mais